ahousubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax ni eh, actualité bi nga xam te nii ci la ñuy wax tey muy dafa nekk loo xam te nii dafa laal yoonu murit laal cheikhul xadim directement Euh, te Cheikhul Khadim nag amuñ lu dul moom ndax attaques yi jëm ci yoonu murit dafa bari di jóge fu nekk nag euh, am na ci yoo xam ne day jóge ci euh, biir am yu jóge ci biti yi jóge ci biir nag su ma waxee mooy li ñi ñi mel ni ñu ci bokk te bokkuñ ci ñi mel ni ñu ci bokk te bokkuñ ci te boole ci seen bokk bokk te bokkuñ ci bu ngeen seetloo sëñ bi radiyallahu anhu nafanaa barakaatu fay ridwaanihi bayit yooyu mu wax ni addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani lortaange ak njariñ ci yàlla lay jóge waaye du ku du jóge ci ku weex du jóge ci ku ñuul bayit woowu ñu bari dañ koy wax waaye sëriñ bi da koo jëfandikoo ca gànnaar jëfandikoo wu doy waar ndax booba ca gànnaar daa am waa ju ñuy wax naaj yi koo xam ne ab naar la naaj yi moomu nag eh, dafa jébbal woon ci sëriñ bi eh, wane ak murit gu wér ndekete yoo la ko tax a jóg musiba la tubaab bi ngemb ko ngemb lu day waar mu yor jaaseem futtiku ba set wicci jóg taxaw temm rek ngir jëmale lor ci ku tedd ki bi mu ñëwee ba jub si ko nag ca la gis ay mbir yu baree bari sëñ bi téye ko wax ak moom gis ngeen sëriñ bi ci yërmande ja lam ko wax mooy demal di jàng sóoratu yaasin saa yu jeexee nga baamuwaat ko ba mu koy def mu tegal ko ñu day la wax naan addurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani loolu suñu baax day ko jàng lu bari kon bayit boobu su ngeen ko déggatee xam leen ni naaj yi moomu sëñ bi moo ko taxoon a jóg moom la ko joxoon ngir mu koy jàng kon nag ñu xam ne kon attaques yi jëm ci Serigne tubaa personnellement ak yi jëm ci turaasam muy héritage am euh, bari na lool wax dëgg yàlla euh, surtout jamono ji ñu toll nii muy ay attaque verbale yoo xam te ni xëy na ñàkk a mën a dem ci wàllu jëmm mën a laal jëmm moo ko waral waaye suñ ko mënoon nañ ko doon defe ay jamono ba ñuy duma murid yi ba suñ bu bésa bindu bindu bind ab leetar brevet di ko ci leeral li li ñuy def murid yi suñ ko mënoon tey noonu la ñuy def waaye nag li ci metti mooy li tax ma joxe misaal ci naaj yi mooy su ma waxee ñu bari nañ ni waa ji morit la wala waa ji nangam la damay tudd turam directement muy ma jàmbal jaañ ndax dama seetlu ni waxuma attaque bu mujj bi mu mujjee def ci porte parole euh, bi suñ bas waaye dama seetlu euh, moom daal dafa mel ni yoonu murid sëfu ko yoonu murid nag bu fekkee daf laa sëfut euh, dañ nga génn wala la nga waxoon ci sa làmmiñ ni ci laa bokk te bokkoo ci ndax boo ci bokkoon doxee di taalibe yi doxee loola tamit nga am nga droit am na ñoo xam te ne ay murid lañ woon bàyyi ku dem ba yëf fi doyatu la mën ngaa bàyyi am nga droit bàyyi lan mooy kilifa diine kenn waru koo may suuf lan mooy état warut a may kilifa diine suuf fan la tegu ah xel comme titre foncé la jox ko Serigne Saliou muy xalif général des Mourides di ko gérer di fa def loo xam te ni euh, créer fa euh, emploi boo xam te ni tey ci histoire Sénégal musta am ci fenn fu foofa. Touba gi tamit di titre foncier ñu jox ko Serigne Touba radiyallahu anhu nafa naan baraka fi faydi ridwanihi ba si gédé gi ma toog ni di titre foncier ndin di noonu ay dëkk dëkk boo demee Dakar foo tourné ñun la Serigne diw sàngam. ci ak ci yeneen tarixa sëñ diw sàngam moom moom fii moom ranch bi moom tool yi moom nangam bi te pourtant état ko jox ah ana fuwaar ba ana lañ suuf si yañ daggoon ana kër jàmbur yañ jëloon joxe ko yooyu yëpp da nga wax kon bu boobaa yow mi ci sa bopp fi ñu la jox suuf suuf si ñu la jox lu tax waxoo ci bu boobaa la nga am yoof sa immeuble booba recevoir nga ma fa lu tax waxoo ci te pourtant présenté woo dara lu ab organe de presse rek kon léegi lan moo tax kon buñ defalee dara ab sëriñ ngeen taxaw commencé di mbel-mbeli ak di coow waxuma dara waaye yenn taalib yi nga xam seen pas-pas dëgërut te xamuñ dëgg-dëgg yéen li leen tax jóg ndax leen tax a jóg ak li ñooñu bokkut ndax yéen leen tax a jóg dinaa ci ñëw ci kanam yeneen mbir la amul koo bàyyiwut ci kilifa diine yi loolu nag du yow dong ñu baree bari la am na ñu bari ñoo xam te leen tax a jóg mooy taxaw fas yéene maanaam lépp loo xam te ni teraanga la ju sëñ Tuubaa war a am wala ak njabootam ñu jàpp ni waruñ koo am lan mooy luy bu ñuy taarif xasad iñaan muy mooy yàlla gi njëkke mooy yàlla ci kaw suuf muy diggante xaabil ak xaabil bi nga koy taarif dañuy di ko xamle dañuy wax ni mooy tamanni zia tamanni zawali naama zawa tamanni zawali niama maanaam nit ki am xéewal nga yéene ci sa xol wala nga bëgg wala ngay dox ci luy tax mu ñàkk loole loola mooy kiñaan te mooy bakkaar bi njëkk mooy suñu borom ci kaw suuf moom la yàlla bokk na ci ginnaaw bokkaale bokk na ci bakkaar yi yàlla gën a bañ ndax alxasudu la yasud ku iñaan du du sang mukk du nekkub sang mukk waaye nag dañoo bëgg nga arrêté parce que xam nañ la bu baax a baax wax naa ko sànq depuis 2006 daan nañ jëflante parce que sama article bi ma fi defoon ci OCI bi may nekk conseil euh, al iradaat yi ak al euh, achams ci wàllu OCI bi euh, révélation yi ma doon def ci yàq gi ci amoon ci temps Karim Wade ak wax ja yëpp yow mii daan naa ci waxtaan ak yow parfois sax daan nga ma jéem a piéger di ma jox ay faux information pour bëgg ma koy révéler waaye man damay gëstuwaat boo ma joxee information li may wax mooy taalibe yi nga xam te ni ngi révéler di wax di coow nekk ci bitim réew ak fu nekk a wax ngir sa article bii donte yow tuddoo sax waaye ni nga waxee ku ko dégg xam ni diw ngay waxal te diw mooma sax muy suñu Bass Abdou Khadre euh, taxul révélation bi ma koy def sax ci misaal waaye li ma bëgg a wax mooy moom dafa am symbole bu muy présenté ci yoonu Mouride muy xalifa général de Mouride jox ko kàddoom yeesal ko ñi fi nekkoon ñëpp yeesal ko mu yor kàddu gi comme moo yor kàddu gi nag nga ni léegi comme ab symbole ci yoon mu di xaaral ma attaqué ko comme ni nga xam te ni sa benn naataango noonu la defoon ngir attaqué suñu maam Mor di wax ci moom ay wax yu ñaaw kon da ngeen a kon kilifa diine yi kon ngeen ciblé bu bu kii jëlee suñ maam Mor tey kii jël suñu bés tey kii jël ngeen séddoo leen léegi nag bàyyi leen jàmbur yi bàyyi leen jàmbur yi ñu dund parce que ay ay nit lañ ay julit lañ ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ bokk fu baax sañ am sañ a mën a mën a mën a mën a am lépp loo xam ne du dagan la yow kenn ci yéen dégguma ko mu wax ni amin wi daa araam li ma leen dégg ngeen di wax yëpp mooy lu tax ñu may ko ko lu tax ñu jox ko nàngam mais loolu mooy lan nit dëkk ci am réew di fa présenté yor ay daara yor lu nekk di defar ay nit nga taxaw ni waruñu leen def nangam chantage bi dafa doy yoonu murit da ngeen waxoon ni lépp lu taxaw bu amee téeméeri at dina daanu yoonu murit am na téeméeri at te wut yéen nag kon arrêté leen li ngeen def te bàyyi eh, seen yàq yi naaj yi moom a ginnaaw moo réussiru ci lam bëggoon xam leen ni lislaam moom day continuer ba faw njàngaleem Sëñ Tuubaa tamit day continuer ba faaw kon eh, dañoo fas yéene nag am na cellule de communication boo xam te ni yoonu murid mi ngi koy taxawal te lañ te fas yéene nag mooy léegi nag mayatuñ kenn moo xam journaliste la moo xam activiste la moo xam ku mu mën a doon mayetuñ kenn nañ lay muy attaqué yoonu murit mbaa muy attaqué ab symbole ci symbole yi l'islam yi wala ab symbole ci symbole yoonu murit bi mais yow suuf si ngay wax yow euh, demal yaay xëy géro yi leen may suuf ñaata la demal dem bu tarixa murit xalif généraux yi fi nekkoon ba tey seeni njaboot ñu ngi doon ay suuf yu baree baree baree Dakar doo wax ci loolu tax waxoo ci tax nga ciblé yoonu murit lan moo tax nga ciblé xalif général lan moo tax nga ciblé porte parole parce que da ngaa xam ni sëñ Touba moo présenté diine ci diine l'islam ci Sénégal nga ne kon léegi comme diine l'islam dañuy xeex kon nañ attaqué suñ Touba directement lan moo lan moo la nekkal ci maanaam euh, def xalif généraux yi ñuy say ñuy say ñuy say ñuy say ñuy say pion yoo xam te ni ñoom nga fas yéene di attaqué directement ak indirectement tamit encore dañoo bëgg nga bàyyi wax ji bàyyi coow li euh, li may wax nag taalibe murid yi ak taalibe sëñ Touba yi mooy ñu xam ni xeeti ma jëmbal yi nga xam te yàq leen tax a jóg suñ leen moytuwut ba tax maam kenn ku nekk di bind ko wax ak di révéler ak di coow te ku nekk ci la ngay wax dossier ba xamul ci tus ñu tey seen ñu ñu tey seen bopp ci ma ku mel ne ma jëmbal mii ndax suñu Abdul Ahad ba mu ko defee ca Mbàkke benn waay bu fa nekkee yoru boutique am di jaay sàngara di jaay yéen su Abdul Ahad tere ko ba sonn daa wax taalibe yi ni bu leen jëndati moom dara bu kenn jëndati ci moom tàngal ak suukar ak dara ba mu ko defee la perte ma jëmbal kon bu ko ñëpp boycotté woon bàyyi le quotidien bàyyi journal am bàyyi ay organe de presse am murid yëpp bàyyi ko murid yi ñoo fi ne kenn new fi taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoo ëpp doole Sénégal bu dee économie ñoo ci ëpp doole bu dee mbooloo ñoo ci ëpp bu ko ñëpp boycotté woon léegi tey mu daanu bàyyi li muy def waaye saa yu ñu xëyee jënd ay journal am saa yu ñu xëyee di liir ay article am parce que loolu tamit suñu vraiment nekkul loo xam te nit ñi nag ñetti mbir moo tax ñu ragal a attaqué ma jambal benn bi mooy ñu bari nee franc la benn ñaareel bi mooy benn waaye waxoon na ma ko koo xam te ni ku siiw ci journaliste yi la ni ma dee leen mooy tuddi xuloo journaliste parce que 365 jours yëpp su ko neexee bu set bu xëyee attaqué la waaye booba nag nañ xam ni booba dañoo yoroon seen organe de presse kenn amu ko waaye léegi sa page Facebook képp boo taxawoon def direct léegi lu ëpp mi million de personnes topp la di la diglu bàyyi xel ni yi muy wax nag buñ toogee di ko bañ tontu rek nag day mujj nag ëpp nag far kon lañ fi waxoon ci suñ saal yi fàttewuñ ko lañ fi waxoon ci suñ baara fàttewuñ ko li nga fay continuer di ko wax toujours lañ fi Moussa wax Abdoulaye Wade lépp su Abdoulaye Wade Moussa dem Touba rek bi jeex tàkk commencé di sànni xeer ak di wax su Macky Sall eh, bëggee defar université Touba mbaa bëgg faa def dara mbaa mu ni maa ngi fay professeur wala nangam nga commencé sa xol bi jeex tàkk ngay bindi article di wax lan moo tax nangam Macky Sall moo tax muy ubbee campagne am di wax ak a coow yooyu yëpp da nga koy teg ci suuf te bàyyi santage ak wax ji bari baaxul te Sëñ Tuubaa mi mënuloo ko dara njabaru Sëñ Tuubaa gi mënuloo ko dara waaye comme ni nga ko waxee rek mayatuñ kenn léegi mu taxaw di attaqué verbalement wala physiquement maam njabootu Sëñ Tuubaa gi ak héritage Sëñ Tuubaa bi ak njàngaleem bi nga xam ne moom la fi bàyyi ak comme ci maa doon nag kuñ ci amal contentieux sax duñ xool naan am nañ contentieux wala dara moom dafa laal lañ bokk ñun ñëpp ñu jóg taxaw di ca wax kon téyel sa wax ji téyel sa làmmiñ yi boo mënee jégalu nga jégalu boo ko nga bàyyi ñu ak suñu mbir keroog nga mujjee attaqué di wax commencé naan Touba l'acte de xuma lan la ko waxee sax xoolal boobu boobu article du ko gën a ñaaw ah, bi corona bi commencé ba saa yoo xëyee di bind ci Touba lu ñaaw di wax nga xam ñu bari yaa ngi di influence journaux yu bari yaa ngi di influence di wax ak la ni la ma ma jëmbal neexoo setal ndax yow foo toll yaa ngi coow yaa ngi wax bàyyil sa yi nga nekkee bàyyi yoonu murid yi nga taxaw fas yéene taxaw leen defi yoonu murid kenn mënu koo defi nañ bàyyi caaxaan yi Sëñ Tuubaa ba muy liggéey dafa bari ñu mu fi nekkaloon ñoo xam te ñu fi woon kenn xamu leen tey mu résir mission bii nañ ko sàmmal teyel ko te fas yéene nag kenn ku nekk doonam sordaal boo xam te ni saa yu ma jëmbal taxawee bëgg a yàq ñëpp taxaw defi ko waxuma nag kenn dem di yàq wala lakk dara wala dara loolu moom lu waa moo ko war a lijjanti waaye bu ñu ko boycotté ñun ñëpp ci côté yëpp ko fi ñu ko gis àndandoo yuuxoo ko coow ko wax ko ba mu ba ba ba ba ba xam xamante fi muy jaar ba mu jaaxle tiit dana mujj bàyyi lii muy def ñaata yoon nga tuub si suñ tubaa neen suñu abdulaat nee na woon ñetti maa ngi jégalu yu nekk genn maa la ñetti maa ngi jégalu yu nekk genn maa kon foo toll naan maa ngi jégalu te boo jógee di waxat di waxat li bon du jëme ci yoonu murit da ko war a bàyyi da ko war a teg ci suuf waaw li am nag mooy walillahi al izzatu wali rasulihi walil muminin naafiq yi nag ñoom duñ xam mukk yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla na yàlla dimbali gindiwaat la nga dellusiwaat ci ak mbaax dellusiwaat ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa